su ñëwee itam na wër tool yooyu xool ba xam ni ñu ngi ñaan su ñëwee itam bu mu dem rek ci borom barke yi na dem ci béykat yu ndaw yi béykat yu ndaw gën a bëri ci réew naam comme ma ko waxee yokk seen mën-mën ngir béykat yi gën a gis seen bopp su ñëwee dinañ ko laaj monsieur le président ah, njëgu gerte yi bu ko wàññi nañ ko yokk ek nañ wax ñun kat daaw suñu nawet daaw dafa amoon tolof tolof am na borom alal bu tub lebal nañu xaalis bëri ci jiw ak engrais ah, mënuñ ko fay et yore nañ ko daanaka lu mu cinq milliards na dindi ci mill milliards Covid deux mille dix-neuf yi jox ko waa ngir mu suñu diggante ak moom. Mansour ndox bi bari na ren mu mel ni baykat yi dinañ nekk ci jafe-jafe. dañuy dellu soit ci rapport bu euh, waa waa waa waa waa météo li ñu waxoon météo Afrique Sénégal mondial yëpp loolu la ñu waxoon nii bu weesoo inondation ci ñu dëkk ci euh, urbain bi dina am itam ci rural bi taw yu dem ba yàq seen ay gàncax kon nañ préparer même ni récolte mun na ay yàqu yàq yu bëri am na ci effectivement xam nga dugub yi nga gis sànq ni euh, ñor na dañ ko war a góob dugub buñ ko góobee fan lañ ko mën a teg ba bu tawee ci kawam du yàqu faaw nga teg ko ci kaw gittax bu ndox mi wannee gittax gi ci kaw ndox mi lay nekk dafay yàqu dafay saxaat loolu kenn amu ci benn sikki sàkk euh, donc loolu beneen problème la lii waa météo woo xam ne commencé ñëw gerte gi mi ngi commencé ñor am na ay doom buñ ko déqiwul dafay xam nga ni gerte gii nii boo xoolee samp na ba noppi pour nga séparer ko ak ndox mi mën koo déqi dafay commencé waat di saxaat kon état bi na waajal beneen laneen beneen taxawaay comme li mu def ci inondation bi que dina am lu mel noonu ci kaw gi loolu benn la ñaare bi ci des man bokkuma ak vraiment waa CNCR gis-gis non vraiment. bu fekkee da nga bëgg accompagner béykatu Sénégal yi toujours doo leen gëmloo chaque année ni na leen état bi waajal pour jënd seen gerte prix bu baax état du jënd ci Sénégal gerte prix bu baax mënut a nekk ci baykat bi nañu jéem a jàngal baykat ñoom waa CNCR nañ jéem a mettre sur pied quelque chose boo xam ni dañuy jàngal béykat yi garder lu ñu bay def ay transformation jéem a créer ay petites et entreprise rural ci kaw gi ngir ñu mën a génn ci ndool mais mënuñu saa mu yegsi ci jamono góob li ñu jëkk def ci bopp baykat bi mooy fan ngay trouver jëndkat bu jënd li ngay am suñu waaye buub suñu gerte gi yóbbu jënd kilo bi 200 euh, francs wala bi di ko ñëw jaayee ñu 100 grammes 1000 francs ci supérette yi yooyu moo war a dakk il faut CNCR ak yeneen yeneen